ay ginnaaw buñ leen nuyoo ñaanal leen jàmm ak salaam te koy sàkku ci yéen di ñaan ci réew mi jàmm ak salaam président Ousmane Sonko mu fanaan daanaka wala mu nar a fanaan guddeem gu njëkk euh, fële nga xam ne daanaka moo nekk euh, euh, kaso loole tamit di lu nu mën a dut baaraam tey di leen ñaan di ñaan Sénégal gi yëpp daanaka ñu am xool boo xam ni xool bu nu gën a seggaat la donte lii lu métti la ci ñoom ci ñu bari ñoo xam ne ànd na moom ndax daanaka nit ak ay tolof-tolof yàlla ko binde moom tey ñaan yàlla réew mi jàmm am ci ni ñu ko gisee noonu nga gis Déthié Fall daanaka mu taf ci page Facebook am wala ci gox yi fasantikoo yi ci réseaux sociaux yi di xamle ànd gi nga xam ne ànd na ko président Ousmane Sonko tey di naqaru li nga xam ni moo am comme ni ko Sénégalais yëpp di defee foo tourné daanaka jàpp na ni lii lu leen naqari la donte daanaka ab sénégalais ku sénégalais bu ñu génnee lépp moo doon am jafe ba yàlla dogal nag mbir ma daal di egsi fii waaye loolu loolee gënalul kenn kon ñu ñaanal li nga xam ni mooy président Ousmane Sonko mi nga xam ne daanaka moom mii mi ngi ci ay jafe-jafe jafe-jafe nag mënta ñàkk ci doomu aadama waaye yàlla na ko yàlla may xulub muñ boo xam ni dana muñ mbir mi ba mu jeex ci muñ goo xam ni dana doon ah, maanaam teraangay Sénégal gi yëpp ndax daanaka moom rek mu muñ daanaka mu ñaalil na Sénégalais yëpp donte du ñàkk am mbiloog mbaajoo moo xam ne dana am waaye loolu lépp gaa yi man ko comprendre kon noonu la information bi gars yi daanaka xam ngeen ko bu baax a baax dana fanaan gu jéem gu njëkk fële ca ndungu sun bu ko defee daanaka ay mbiram nag comme suba la samedi te gars yi daawuñ liggéey samedi gimaas mën naa am lépp altine la gars yi jubluwaat ci ay mbiram bu fekkente ni amul lenn loo xam ne doxaat naka ci diggante bi ay xéewal yu dal ci kawam te xéewal yooyu ñu ngi ko koy ñaanal di ko ñaanal bépp jullit boo xam ne nekk nga ci ay xat-xat ndax képp ku euh, ñaanul nit sa mbokkum jullit génn ci xat-xat dangaa jaarul ci xat-xat ñu gisee ko noonu ñaanal ko jàmm ñaanal senegal jàmm ñaanal ñëpp jàmm bu ko defee lépp doon taw féex jërë ngeen jëf